de retour sur le plateau matinal le Sénégal ma dalal sama naataango yi ñëw daal di may fekk si eh, ci plateau bi ku ci mel ni Kajoor Kajoor maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha gloire à Dieu sant ko bu baax moom ñu may fekkee di nuyu ñëpp ñu ñuy euh, teewlu ak ñi ma fi nar a bokkal plateau dalal ak jàmm Pa nuyu naa la. maa ngi euh, euh, ak ñi nga xamante ne. <laughs> di <laughs> en tout cas di remercier tout le si début semaine bi. Mm. ah euh, di fay ko yor Cissé di ko nuyu di euh, nuyu Amadou aussi. dalal ak jàmm Amadou. nuyu nañ la delloo nañ la njukkal ci fajar gi ci sa jàllaama delloo njukkal ci sa même pas ci sa eh? sa tey di bu baax a baax a baax ajaratu Safiatou ma sañsel tey Aïcha donc nuyu la nuyu aussi ñi nga xam ne moom ñu topp ba léegi jusqu'à te duñ bàyyi ba guddi donc ñoom tam ñu leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax alors dañuy tàmbali la revue web Kajoor ak une Euh, série d' accident sur l' axe euh, Saint-Louis Dakar nga xamante ni lu toll ci ñetti nit ñàkk nañ ci seen bakkan. ñeenti accident la yoo xam ne euh, lim nañ ko niki bisub démb bi képp yemoo ko dimanche ñaa juróom-ñaari fan juillet ci diggante Ndar ak Ndakaaru ci route nationale 2 ba. Euh, accident euh, yi nag euh, jur na lu nag ñetti nit yoo xam ne ñàkk nañu ci seen bàkkan ci ñeenti accident yooyu ñu wax daanaka bu ci njëkk dafa laale ak benn bus boo xam ne dafa wàcc taliyam laata muy daldi wëlbateku loolee amee ca euh, tund gi ñu duppee Kelle Guèye nekk ca Louga ginnaaw loolu euh, ba ñu xayma nag euh, daanaka bilan bi ñetti nit ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu waaye kenn génn ci àddina Ousmane Sonko sax jàddoon na foofu ngir xool nan nan la fa fii tëddee ci après-midi bi nag ci village bi ñu duppee Afé ñaw foofe itam ab euh, oto moom moo fa dal def ay tonneaux yu bari euh, ñu lim nag benn ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ku ñàkk bàkkanam ñeent jële ci ay gaañu gaañu équipe convoi ki nga xam ne moom mooy ministre Cheikh Tidiane Dièye nag daanaka sax dañ ci yem bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàppale sax way loru yooyu amoon na itam accident boo xam ne ab buse la euh, boo xam ne euh, dafa euh, daanaka nërmeelu ca ngay mexe lu bëri ci ay blessé ñu daal di ko fay lim beneen accident itam boo xam ne 4 x la bu daanaka mbëkkante ak beneen bus loolu amee ca jama tiget nekk ca Saint-Louis foofee la ñu lim nag lu toll ci ñaari nit yoo xam ne ñàkk nuñ seen bakkan ak ñu bëri ñu xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ambulance bi nga xam ne sax moom moo ñëwoon itam ngir euh, daa daanaka sowe nit ñi moom it dafa faf def accident foofu ak benn clando boo xam ne moom moo doon euh, daw en sens inverse mu mel ni rek taw bu bari bi nga xam ne am na démb naka noonu mbedd yu yàqu yi waaye itam comportement wu ñenn ci ay chauffeur moom moo waral euh, yooyu les accidents bu ñu jógee ci loolu Dakaractu ñu ngi xamal dina am ay changements yuy am au sein des forces armées loolee nag euh, ñi ngi koy euh, xamle ne dina am ca gendarmerie nationale loolee nag ginnaaw ba ñu tabbee au commandant gendarmerie nationale bu yees muy directeur justice militaire bi di général Martin fay nee nañu nag dina am yeneen ndombal tànk yu bëri yoo xam ne daañu ko tabal ñenn ci way takk der yi la ko dalee Dakar jàpp Ziguinchor ba saint jaar euh, Tamba fépp dina am foo xam ne dañu fay tàkkal ay ndombal tànk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ci force de défense et de sécurité bi loolee nag nguur gu yees gi lu mu ci jublu rek mooy euh, daal di indi lu yees ci doxalin ànd ci ak nit yi nga xam ne seen jukko méngoo na ak jub jubal jubanti bi nga xam ne moom la basiru Diomaye fay euh, dal di euh, woote ñu bëgg nag jub jubal jubanti boobu ñu mën ko nemmeeku itam euh, ci armée bi rawatina gendarmerie nationale bu ñu jógee ci loolu Kajoor fële ca Casamance ay famille yu nga xamante ni dañu nekkoon en exil depuis plus de trente ans ñoo dellu si waat ci seen ay village village boobu nag mu ngi tudd Bousolum 33 euh, ans après ñu dellu soir nañu ci seen euh, village boobee admini autorité administrative yi daanaka euh, maanaam kilifa yi gox yi ñoom ñoo daldi dox jéego yu ni mel ànd ci nag ak. ay euh, ONG ngir fexe rek ba euh, ñoom village waaye delluwaat seen euh, village boobe loole samedi la ñu daal di jëmmal lu ni mel bu solum jàppale leen ne mu ngi nekk ca commune bu Boutoupa Camaracounda nekk mhm. ci région bu Ziguinchor foofee nag ñoom 33 ans ngi ni ñun dawoon laxu ca Guinée Bissau ginnaaw ba xeexu Casamance bi tàngee bu baax a baax mënuñ ci woon nekk foofu ñu ne ñu doon leen bun xatal ñu daw génn euh, dëkk ba dem wutali fi nga xam ne moom mooy bi saaw foofu nag dafa bokk ci euh, arrond loolu moom mu ngi nekkoon jamono jooju mu ngi nekkoon euh, communauté rural bu Butupa nekk arrondissement bu euh, Niaguis ñu abandonné nag seen village waaye ANRAC ak euh, ñi nga xam muy ONG bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi euh, bu état bi amal ay jéego ba tey jii ñoom dellu siwaat nañu seen mhm. village yi daal di fas yéenewaat dëkkaat normalement. les trois pays de l'AES actent la naissance de la confédération. malila la Burkina ak Niger. ñoom nag ñoom ñoo daal di euh, tënku ginnaaw ba ñu amalee ab lël boo xam ne moom moo dajale seen euh, ñaar ñetti euh, kilifa ji njiitu réew yooyee ñoom nag ni ki samedi 6 juillet ca lañ doon daje ca Niamey ca la ñu daal di jëmmal nag li nga xam ne moom lañ décidé mooy maanaam daal di samp ab confédération des états du Sahel boo xam ne dajale seen euh, ñetti réew yooyu général Tiani euh, colonel Goïta ak euh, capitaine Traoré ñoom dañoo fas yéene boole seen doole ngir gën a mën a lëkkaloo ci bépp fànn ñoom nag loolu ñu ngi ko décidé ñetti njiitu réew yooyee ngir daal di baral jéego yi nga xam ne tàmbale nañ ko ci seen ànd. loole nag ñu ngi ko euh, adopté euh, ginnaaw euh, sommet boo xam ne mu ngi amee woon capital capitale bu Nigéria samedi bi la doon amee mu nekkoon sommet boo xam ne itam dañ cee fas yéene dañ cee daal di fësal itam seen décision ne ñu dellu fi nga xam ne moom mooy CEDEAO Euh, loolee la ñu daal di fësal ci seen ndaje ma ginnaaw ba ñu jëmmale seen décision boobu ñu ngi daal di samp ak confédération jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal euh, bu baax a baax euh, ci xibaar yi am na solo ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ci accident euh, yi am diggante Ndakaaru ak ndax Géej ñu ngi leen di masaw bu baax a baax bu ko defee ñu wéyal rek li nga xamante ni moo di matinal bi avec la revue politique et économique ce sera tout de suite juste après le jingle ñu ànd ceeg Pape Malick Thiam